bismillahi irrahmani irrahim wassalatu wassalaam ala rasulillah mawlana muhammadin wala man wallah ixwani fillah jamaatu islah bayna nas assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu démbu bi nekk mbir mu mbir mu daw yaram waaye xam ne jaaxal na adduna bi bi toll tey ci ci wàllum mbokk yi lan moo fees démb moom mooy mbooloo mi nga xam ne dañuy yëngu ci wàllu faj nekk ci hôpital boobu nekk ca Gaza démb dañu gis lu toll ci fanweeri néew yoo xam ne ñu ngi leen boole woon denc leen ci ñaari bàmmeel ñu nekkoon ci kanamu béréb yi nga xam ne fa la ñuy waajalee nit ki bu dikkee ñu koy def urgence hôpital ba muy côté urgence bi centre d'urgence bi ak fi nga xam ne fa la yi nekk maanaam ñiy faj wàllu rein ak di faj lépp lu jëm ci wàllu góor ak ak yu mu mel ni kon armée Israël yi moom dafay sukkandiku ci di nëbb ay néew yoo xam ne suul ci biir beeñ bi ba pare nag fexe ba nga xam ne kenn du xam ne dara ma nga kon niki noonu tamit démb gis nañu ñaari néew yoo xam ne jigéen lañ ak ay mag ak ñoo xamante ni dañu ay gaañu gaañu te ñooñu sax gis nañu ne ñoom bañ leen di denc foofu seeni loxo sax dañ ko daal yeewoon ñenn ñi sax dañu sënnoon seeni yére mu mel ne sax ba léegi lu tollook junni ci ay nit ñoo xam ne ay fajkat lañu ci wàllu ci foofu nga xam ne moom mooy hôpital boobu di Al Shifa bien sûr ak ay journalistes yu bëri ragal nañu ne ñoom kat seen néew ña nga fa wala boog réer nañ seen mbir ba xamatuñu fi ñu nekk ci beneen wàll ñi nga xam ne mooy waa Iran ñoom itam wax dëgg yàlla ñu ngay gën a yëngal ndax gis nañu seen ñi nga xam ñoo yor seen wàllu arme nucléaire mooy arme yooyu nga xam dafay faagaagal mbooloo ci anam bu gën a gaaw lool lool lool lool te Amérique jàppoon na moom rek moo moo ko amoon bay xoqatal adduna bi waaye tamit ci loolu xoqatal boobu mu ko doon def tamit dem nañ Iran am ko Iran ñoom ñoo wax ne mën na am danañu xoolaat seen doxalin ci wàllu armee boobu bu Israël jéemee yëkkati benn naay di ko jëmale ci ñoom danañu seetaat seen i mbir waa Iran ñi ngay dëggal na am nañu ay centre yoo xam ne dëgg ay centre lañ yoo xamante ni yu am am solo lañ daal di wax ne ñun ndax ñun waa Iran am nañu ay yu leer ci centre yi nga xamante ni Israël yor na ci wàllu nucléaire ci ne moom dafa am fenn fu bëgg a jubale ci ñun waaye loolu bu naree am rek ñun dinañ ko gàttandoog ay yu gën a garaaw muy ay arme nucléaire mbokk yi arme nucléaire bu jógee ci gox boobu faagaagal gu gaaw lay faagaagal ña fa nekk Israël nag ma ngay xëbale ci ay arme nucléaire waaye bu ko yëkkati ci diggante moom Palestine ndax bu ko yëkkati diggante moom moom Palestine li ëpp ci musiba bi ci moom lay dellu waaye bu ko jubalee Iran mën na nekk waaye waa Iran am ñu doole pour karkaral loolu nga xool ci vidéo boobu gis benn soldat yahud boo xamante ni ca fi ñuy wax penku bayti xanuun ca càmmuñu Gaza yaa nga gis ne foofu daal fa lañ ko napp tale daa di fexe ba suuxal ko pour mën a dal ci kaw waaye nga gis leneen loo xamante ni tey mu ngi fees mu ngi fees foofu ci biir Palestine muy ay jokkoo ci wàllu téléphone yoo xam ne doo sax xam fu mu jóge waaye tam mu nekk loo xam dañ koy enregistré ak ay message yoo xamante ni duñu xam fan la jóge mu ay message yoo xamante ni ñu ngi koy jaaree ci réseaux sociaux yi mu mel ni nag loolu li muy jublu ci yooyu moom mooy ci am ay renseignement ak xam dëgg-dëgg fan la kuréelu palestinien yi daal di làqatu moo tax waa doomi palestinien yi di moytandikuloo yenn xeetu message yi ak yi nga xamante ni mu ngi fay daal di am niki noonu tamit Erdogan bi président bi nga xamante ni mooy président turc moom ci boppam ne na amul kenn ku am sañ-sañ di sikki sàkk ci suñu yëg ak si suñu taxawaay bi nga xam ne bu dëggu la ci ñi nga xamante ne moom mooy doomi palestinien ak ñi ñuy jàkkuwanteel kon Erdogan ci jamono yi nag boo leen fës boo leen xoolee fës na lool ci journal yi maanaam fës na lool ci fësal boppam waaye ba léegi rek dafa yemaat ci ay déclaration man Erdogan man chaque fois rek loolu rek laay wax déclaration daf ko warul ndax dafa daal di bëri ba léegi a monde musulman ñëpp xam nañ ne li ñu war a yëngatu yëngatu ko dëgg dëgg dëgg yëngatu waaye bu ñu defoon o moins li nga xam ne moom la Yemen def moom la Iran def moom la Hezbollah def dana sax xaw a tane dëgg dëgg dëgg dëgg li nga xam ne moom ma xew waaye def ay déclaration dëgg dëgg dëgg wala boog Algérie li mu nekk di ko def nga xam ne Algérie nee na Palestine dañu war a nekk membre entière ci fi nga xamante ni moom mooy fële ci Nations Unies ni fa Sénégal nekkee membre feneen nekk fa membre loolu na nekk loo xamante ni réew yu bari jàppale woon nañ ko ci waaye démb bi ñu demee ba nga xam ne nañ ci vote yi Amérique moo defaat droit veto maanaam moo defaat veto maanaam Amérique moo waxaat ne loolu du mën a nekk te Amérique xam nga dafa am ay réew yu nekk foofu yoo xam ne droit de veto maanaam su fekkee dem nañu ba ànd ci dara ñoom buñ ci àndul rek loolu daal di ànd Amérique ci la bokk France ci la bokk Chine ci la bokk donc démb mu defaat veto ngir daal yi mooy ñi nga xam mooy doomi ba léegi ki nga xam ne mooy Rajab Tayyip Erdogan di président turc nee na amul kenn koo xam ne war naa mën a sikk saak mun yëg-yëg bi ñu am ci jafe-jafe yi Palestine dekkee muy question palestinienne mu ne nag na ñëpp xam ne problème mu Palestine maanaam question palestinienne muy xadiya bi loolu moom moo jox suñu dund sens ñun maanaam ñi nga xam ne ñu ay jullit lañu nee na mouvement Hamas moom ni mu ko jàpp ci dëgg dëgg dëgg mooy li nga xam ne nee na mouvement national yi nekkoon Turquie jamono yi ñuy xeex indépendance bi ñu amoon nee na ñoom wax kon nee na moom mën na wax ne njëkk li ciy feeñ lu waroon mën nekk la nee na moom Erdogan moom rek bu ma nee na bu desoon nee na man rek bu ma desoon man Erdogan ci kaw suuf dinaa défendre Palestine dinaa dinaa dinaa yëkkati kàddu doomi Palestine fekk maa ngi des ci dund waaw kay jërëjëf Odogar wax dëgg yàlla déclaration yi moom am na solo trop trop yal na yàlla dem ko taxawu waaye ñu ngi koy woon ak ci mu fësal boppam nag beneen wàll Saraya Quds ci seen contingent bi nekk Jenin démb jekku nañu benn drone boo xam ne waa Israël ñoom ñoo koy yabaloon bi ñu ko fa yabalee mun na amee woon marque d'Aïssi marquise ci loolu am dañ ci drone bi bi mu ñëwee ñoom amaale nañ ci ay renseignement ndax bu leen fàtte ab drone buñ ko sànni mooy avion yi nga xam do am nit du am dara dafay day yoraale appareil léegi loolu de boo boo boo ko amee dañuy mën ne am fan la yu xóot yi toll mu ne nag ñoom démb am nañ ci lu bari bari ñoom niki noonu démb gis nañ tamit jazira comme ni ñu koy faral di waxee xeexu yahut yoo xamante ni mu mel ni ñu yor wàllu xeex bi ci wàllu yahut yi ñoom démb am na fu ñu di jéem a waxtaanee naka la ñuy fexe ba jotaat seen nit ñi leen jàppal ak ñoom ñu daal di delluwaat nit ñi nga xam ne tamit aussi tamit jàppal nañ ko Palestine liñ jàppal Palestine moom kenn xamul mu toll démb boo xoolee liñ def ci ay arrestation yoo xamante ni arbitraire jàpp ay nit ñu lim ñu takkoo takkoo takku lañ jàpp moom daal doy na waar doy na waar doy na de mbokk bu ñu demee ci wàllu wér-gu-yaram gi foofu ci Gaza wér-gu-yaram gi sooxe na lool ndax yaa ngi tànn juróom-ñaar téeméer ak fanweer yi junni nit ñoo xam ne dañ doon yëngatu ci wàllu wér-gu-yaram gi fi mu toll nii defatuñu benn service médical maanaam yëngatuutuñu ci daara foofee ci càmmoñu Gaza niki noonu tam gis nañu doomi Palestine yi yi di taxaw ay ndiir su yàgg yàgg yàgg ngir mën a am mburu ci boo xam ci boulangerie yi loolu nag dëgg-dëgg ci jamono boo xamante ne noon bi muy Israël ma ngay wéy di def ay njommeem ba kenn su ci gis lu ni kon donc eh, wàllu wér giram na mu jafee noonu la dund gi daal mbokk yi xew-xew bii di bu doy doy waar la boo xamante ni xeex bu man damay wax ni dëgg dëgg bu fekkee ni yenn réew yu mel ni Iran ñu ngi def mais nañu gën a gaawal seen doole affaire bi sax nekkatul sax ci kaw attaqué na ma attaqué dem rek xeex rek lay doon jéem a xettali askan wu ndax ñu ngi dund jafe-jafe yu méttee métti te daal di tar gis nañu tamit démb armée israélienne bi commencé génn ci ay gox di daw di dem yoonam loolu nag teewul waa Kataibul Qassam mu nekk mu jaahidoona yi nga xam ñooy xeexal waa Hamas démb fekk nañu mbooloo moo xam ne mbooloo moo kattanu la ci wàllu ngànnaay nekkoon ci côté fi wax na ci côté Natacha nekk ay yahud yoo xam ne yor nañu ngànnaay jëm ci ñoom waaye waa Hamas muy mujaahidoon yi jëfandikoo nañu roquette bi ñu wax Owen di yu diis gan daal koy dóor mbooloo moom faagaagal leen déglu nañu démb ki nga xam ne moo jiite fi nga xam ne moom mooy jamaa boobu di ansaarullah te dëkk yaman mooy Abdul Malik al Xuusi Badruddin démb ci interview bu yàgg yàgg boo xam ne seq na ko ñenn ñi te sabakatu furqaan génnee ko leeral na fa lu bari bokk na ci wax ji nee na ñu ngi wax ñi nga xam ne ñoom ñoo dëkkee réewu tubaab yi xamal ne lii seen jàmm moom mooy jël li nga xamante ni moom ngeen moom te nga xamante ni mën na leen andil ay jafe-jafe yu bari ngeen bañ a dugg ci loo xamante ni bu ëllëgee day nekk njëriñal Amérique maanaam yii Amérique yi def bu leen ci dugalee yéen di ngeen gaañ seen bopp te loolu daanaka du ko jar ci loolu nee na ginnaaw nosu gi ñu nosu daal di defaroo ba jekk ñun ci suñu réew mi mën nañu nguur gu mu a doon nguur gu mën a doon nguur gu mu mën a doon mën nañu dal ci kawam fii nga xam ne fi lañ koy jaare muy géej gi niki noonu tamit euh, mu waxaat na ne dana njeexitalu ci wàllu kaaraange ak jàmm ñi nga xam ne dañuy nappu ak ñuy romb ci géej gi ràcc-ràcloo bi nga xam ne war na fee am ci wàllu xeex rawatina ci géej gi xonk gi ni ki noonu waxaat na ne moom Badru di nee na noon bi nangu na ne moom daal dinay échec maanaam daal la mu bëggoon amu noon bi nangu na ne moom muy noon bi bu ñu ko waxee daal dina ay yàqule ci wàllu koom-koom yoo xamante ni dara jurulu lu ko taxawaay bi ñu am fi ci géej gi ki noonu tamit mu ne noon boobu di Israël la mu yàqu day daal di wuy di gën a nekk loo xamante ni lu doy waar lay doon ndax rawatina bi nga xamante ni ay gaalam yoroon a jaar fii ñëpp daal leen di ba léegi moom xuus si muy Badruddin ma ngay leeral ba léegi ma ngay leeral ma ngay leeral moom si ma ngay leeral jafe-jafe ak perte bi nga xam ne Amérique ak Grande-Bretagne ak réew yi nga xam ne jàpp jàppale Israël ñu ngi koy am ci boobu ñëw ci ni mu gën a yaatoo ci waxtaan bi mu doon waxtaan waa Sabakatul Furqaan loolu ci fin journal bi lay doon ndax interview interview bu gudd la leeral na ci lu bëree bëri wax na ñaata gaal la ñu wax na ban taxawaay lañu am wax na tamit noon bi niñ ko toroxalee ci géej loolu nag dafa gudd lool incha allah lii da leen ko ci jukkiloon rek mais ci kanam leen andil bi mu nekk suñu dernier bulletin ci journal ngeen xool waxtaan wu réeri la am ak ñi nga xam ne mooy waa Sabakatul Furqaan moom ki nga xam ne mooy Badru Diin alxuusi nekk nga xam ne moom mooy njiitu jamaatu ansar de mu mbooloo mu takku ci ay libaane ñoo xam ne dem nañu ci kanamu centre boobu bi xam ne ANRAWA moo ko moom enseignants yi ñoo leen wowoon pour ñu mën a manifester fësal seen naqar ci lay xew ci Palestine waaye démb gis nañu ay ay ay ay bopp yoo xam ne ay yuur lañ ñoo xam ne bañ leen nemmee ay soldats israéliens la ñoo xam ne faat nañ leen foofee ci bayti mu nekk faatin woo xam ne faatin wu métti lay doon woo xam ne tiital na leen nekk noonu gis nañ waa Kataayibul Xasaam ca tul karam yu daal di am taxawaay bu dëgër a dëgër taxawaay bu njàmbaare ci jàmmaloo gu metti ak ñi nga xamante ni ñoom ñooy yahut yi daal di sax si na saxal lépp loo xam ne andi ñu ko fa ca kàttan tam di leen di dóor ay roquette foofee tamit ci nuuru shams kon tamit foofu gis nañ ñoom itam gis nañ leen démb dëkk bi ñu asqolaan loolu tamit waa Israël daal di fa duuloon seen tànk ñu dóor leen fa ay roquette ñoom waa Saaya Quds ñoo fa dóor waa Israël ay roquette ki noonu tamit gis nañu tamit ab benn songu gu métti goo xamante ni am na ci eh, ci benn usine bu nekk sowu Gaza ba léegi nit ñi ña ngay daw ci béréb boobu ñàkku dañ koo taal Égypte Qatar nee na ña yeesal seen dogu ci kanamu conseil de sécurité pour wéyal seen doxalin pour yaatal ak dëppoo ak taxawal xeex bi foofee ci Gaza nekk noonu gis nañu armée israélien sonnal démb ay civil lool ci béréb bi nga xam ne moo nekk ci sow Gaza côté Tel Hawa ñii mu leen di jéem a génne ñii mu leen di jéem a gaaral ci wàllu ay ngànnaay ngir xoqatal leen ngir directeur général bu bu bu wàllu yor wàllu information ci gouvernement Gaza ma ngay wax njoom yi nga xam ne yahut yi def nañ ko te mooy lu toll ci trente deux fanweer ak ñaar ci ay hôpital yoo xam ne dañ doon liggéey ci cosaan tey mënatuñu def dara waaye lu toll ci trente cinq euh, ak euh, ñett yoo xamante ni maanaam lu tolloog ci yeneen hôpital yoo xamante ni daanaka wala bopp la nga ne trois virgule trente cinq yoo xamante ni daanaka vingt pour cent ci seen liggéey ak seen mën-mën defatuñ ko mbokk yi ginnaaw loolu na andi leen xibaaru soxna si nga xamante ni wala bokk xale bu jigéen bi nga xam ne ci soldaaru israélien la bokk waaye muy wax ne ñoom li leen nit ñi di wax ci kaw ak li ci biir lu benn ñu ngi leen naan Israël def na nangam def na nangam mu ne loolu ma ngi am waaye nee na ñun ñi nga xam ne soldaaru Israël ñun ñuy jeex li nekk ci guerre bi mooy Hamas moom moo téye terrain bi mooy Hamas moom moo jekku parce que lépp lu amoon ci ay effectif sotti nañ ko fa waaye fa ñuy mujj rek mooy dañuy mujj di faagaagal ñuy jóge ci gox di toxu ci gox di jëm ci gox kon ñu déglu ko léegi moom soldaar boobu ko waxu intervention bi nga xamante ni moom la euh, Badruddin al-Housi jëflanteeg waxanteeg ñi nga xam mooy sabakatul furqaan li ci yéeme mooy soldaar bi dafa bokk ci ñam dañoo daw def mutinerie yi daw bàyyi armée israélienne moo tax mu jàkkaarloo fii di wax ak ñoom di la wax ne situation bi ñu nekkee politique bu bon moo ñu ko yóbbee di wax ne nag bu kenn jot wax yi nga xam ne amul di leen ko wax ci kaw lii dëgg bay dëgg mooy Hamas moom moo téye terrain di wax fitna ak jaaxle yi nga xam ne moom lañ nekkee loolu nag moo tax baaxoon na moom ci Israël nëbb ay njommeem fisal ay yoo xam ne daf koy def tiital nangam nangam waaye li wér mooy ne ay soldats israéliens te sax loolu dañ ko nemmeeku ci jamono yi ci yenn gox yu bari bëri yu ñuy jékki-jékki daw dem seen yoon yu bari bëri yu jékki daw dem te it gis ngeen euh, wax naa leen démb ne la lim bu takku ci ñoom ñi ñu ngi xaru ñi ñu ngi dof ñi ñu ngi tuur dugub ci seen tubéy ñi ñu ngi sunguwaay seen bopp ñi ñi ñu ngi bëgg a xam donc fitna yooyu dañu di am ci ñoom ba léegi kon nañ gën di ñaanal ñu jaay doole te xam ne seen taxawaay dëgër na lool daanaa jàng benn xadis ñu ne Euh, mujjub jamono du am lu ne yahut yi ak jullit ñi xeex nañu jullit ñi duma leen dañuy làqu ci ay ginnaaw ay xeer boobaa xeer yooyu ñoom ñooy fisal naa leen ñoom ñu ngi nii aha xadis bi nag léegi laa bi mooy nekk ne noppi gi nga xam ne doomu aadama yi dinañu noppi ci jëf ju bon ji nga xam ne Israël dina koy jëf ci biir Palestine nekk na noppi googu la yàlla doon junj di ñu xamal ne ñu xeex bi fa muy mujj fa muy mujj moom lii mënu ci ñaat mu ngi ak noppi moo tax a gis dafa maa gën a jox confiance ci ma xam ne day yàgg rek mais doomi presse yi ñoom fii te kaw ndax ku xool àdduna bi seen tekkaaral ak seen i noppi dëgg la déclaration yi bëri na trop waaye dëgg dëgg nag déclaration dafa ànd ak jëf kon ñu déglu ki nga xam ne mooy Badru Diin mi nga xam ne alxuusi xool ko ak interview ak interview bi nga xam ne moom la defal waa sabakatul furqaan ngeen suivre ko xam ne ñii dañu déterminé wu waaye yemen ñi dañoo taxaw waaye yemen ñi deltuñu ginnaaw benn yoon waaye taxawaay bi ñoom bu am solo la ci xeex bi waa sabakatu furqaan nee nañ ko yow kilifa gi di Abdul Malik Badruddin jiite jamaatu ansar problème américain yi ak occidentaux yi ak Iran ci dëgëral gi muy dëgëral peuple palestinien ak ñi fay jihaad noo ko gisee mu ne leen na gën a xam ne noonu yàlla yi ak yenn réewu arab yi mais ñi nga xam ne seen taxawaay ci Palestine taxawaay bu xel mu gàtt la ndax mooy lan dañ jàppee ne Palestine problème am problème mu Iran la ñu ne kon bu Palestine gañee day mel ne Iran moom moo ci ràññeeku moo tax yenn réewu arab yi daal di téyendi seeni loxo daal di ànd ak occidentaux yi ñu laajat ko lan moo tax Iran jël mbir mi féetale ko boppam maanaam ba daal di doomi palestinien doomoo leen di leen defal lu nekk di leen mu ne leen moom kilifa gi mu tontuwaat leen ne leen waa Iran day seen jëf dafay dëgëral ak a jëriñ ñi nga xam ne moom mooy palestinien yi ak ñay jihaat ci Gaza ñu ne ko bu amaatoon yow kilifa gi bu amaatoon beneen nguur boo xam ne ñëw na pour taxaw ci problème bi dëgg-dëgg comme jëflante ci Israël ni ngeen di dëggalee peuple euh, palestine mu ne ko alaa kulli xaal daal peuple nañ ci taxawaayu Iran ndax ñu taxawaay ñun foofu nekk na loo xam ne sax tiital na noonu yàlla yi donc keneen ku ñëwaat yi da jàpp ci liggéey boobu keneen nag koo xam na nga ñëw nag farat ñële dañ lay considéré comme ñee léegi nee na noonu bi di Israël bu namaatee dem fayu li ko Iran def naka def su ko defee loolu situation bi presque lay arrangé ndax mooy Iran dinañ am mu leeraat fond bi nga xam ne mooy Hezbollah nga xam ne nee ñoom ku xool ci eh, jamono bi ñu génn mu muy ci ñaari semaine bi di nga yëg ne am na jafe-jafe lu mu andil ak njeexital yu moo xam ne def na ko ci noon bi nga xam ne moom mooy Israël mbokk yi nag jëlee cib làkk yóbbu cib làkk moo gën a jafe waaye ñu ngi andi maanaa yi camt ay kàttan li mu bëgg a wax rek mooy Israël ci jamono bee Hezbollah togg na ko ay mbétit ay jafe-jafe yoo xamante ni yëg na ne moom loor nañ ko ci bu baax a baax léegi kilifa gi nee na lu tolloog juróom-ñetti ci ay gaal yoo xamante ni noon yi ñoo leen moomoon muy Israël ñooñu giir nañu leen mu a fi mu toll li mu gaal yi nga xam ne ñun yàq nañ ko àgg na ci juróom-ñeent fukki gaal ak ki noonu wax na ne ñu ngi def le tout ba danger bi du lor mool yi nga xamante ni dëgg-dëgg ñoom ñu ngi ci donte nag ay dañuy nag bokk ci réewu tubaab bi waaye nag jàppul ni Israël ñu ngi def le tout ba nga xam ne ñoom dañuy nekk ci kaaraange waaye leer ba leer daal mooy àggagum nañ ci juróom-ñeent ci gaal ak juróom-ñeent yoo xam ne yàq nañ ko ci ñoo xam ne doon jëflante ak Israël niki noonu tamit ci ni ñu organiser ñun waaye Yemen mën nañu do nguur gu mën a doon boo fa andee sa gaal mën nañ ko yàq te it mën nañ jëflante jamono bu nekk maa ngi feddali que ni ñu ngi fexe ba kaaraange di am ci nga xamante ni moom mooy mool ya nga xam ne ñoom ñoo fay nappee maanaam lu jafe nag lay doon nag waaye ñoom ñoo xam ni ñu koy defee ñu ko doon mooy Israël moom reconnaître na ne moom échec na total ci wàllu géej gi ba léegi kilifa gi nee na yi nga xam ne Yemen def na ko rek ci ci semaine bi mooy ay ay ay ay jàmmarloo yu mu amalanteeg noonu bi ci diirante semaine bi rek mën nañ ne fukki yoon ak ñeent yoo xamante ni ci mer rouge bi ba fi nga xam ne moom mooy océan pacifique bi muy almuhitul hindi wala océan indien bi foofu yëpp nga xam ne dafa bokk ci suñuy fi ñu pour toroxal fa Israël ca ndey jooru Palestine yëpp nee na foofu yëpp nee na def nañ fa suñuy œuvre militaire maanaam suñuy jëflanteeg ñoom ba nee na mën naa ne lu tollook fanweeri missile ak juróom-benn sànni nañ ko yoo xam ne missile ya yelsin la ci ci ci béréb yooyu nit ki noonu tamit lu mat juróom-ñetti gaal yoo xam ne jokkaloon nañ jokkalante nañ doon jëm Israël atteindre nañ leen donc mat kon quatre-vingt-dix-huit gaal waxoon naa ko nit ki tamit nee na euh, œuvre militaire maanaam jóg di jëflante ak waa Israël loolu dafay wéy di di continuer mu ne nag ci jamono bi lim bu baree bari bari ci ay secteurs yoo xam ne ñu doon yëngatu ci wàllu géej gi daanaka dem nañu disparaître na Amérique Grande-Bretagne ñoom ñëpp xam nañu ne amul kenn ku ñu mën a taxe def liggéey bi mbokki nag interview bi dafa gudd la mu ko doon gàttal rek mais li am solo daal mooy ñu tënku ci wax ji mooy ne ñoom eh, tooguñu yàccaaral liñ ne woon tekk rek li ci liggéey bii la ñu nekkoon ndax quatre-vingt-dix-huit bateau quatre-vingt-dix-huit bateau yoo xamante ni mu ngi jóge ci réew yooyu boo ko kooku forcément dana njeexital ci li nga xam ne mooy économie Israël donc mbokk yeeg xarit ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen baalu ak di leen ñaanal jàmm di ñaanal sutura di ko ñaanal ñen nekk biir Palestine dañuy taxawandi fii ci xibaar yi ngir mën a jublu ci nga xam ne moom mooy yitte yi di leen jox rendez-vous ba suba ak jàmm di gërëm bu baax a baax taalibe sëñ Moustapha ci vidéo yi mais di gërëm ki nga xam te moom mooy docteur Yaxya mais nag di beral ngërëm Hamza mi nga xam ne moo koy dajale ak liggéey bi mu ciy def mbokk yi xibaar yi Hamza mu ngi ciy def liggéey boo xam ne man ñun ñi ñëpp doo xam wax ko alhamdulilah ko ñëpp sant mënuma ko nettali ndax vraiment liggéey bi ak dina foo xamante ni sax man kawe na sama jort kawe na sama jort liggéey bii muy xibaar bi xam Hamza def na ci loo xamante ni même man bu ma ko waxul moom moom xam naa ne yàlla dina ko fay ndax liggéey boobu kenn ma seesu koo gis mosuma ko tamit imaginer yóbbu na ko fu kawe kawe kawe kawe waaye loolu lépp nag dañ ko gërëm Cheikh Al Fahim nga xam ne moom ubbi bunt yi yombalal ñu liggéey bi te ay jëfam nekk jëfi suuf yoo xamante ni yàlla na ko yàlla sotti bu ngeen xam lan mooy li fi newoon waaye daal maa ngi leen di gëmloo ni am na liggéey boo xamante ni mu ngi ci biir ci biir journal bi ci diggante taalibi sëñ Moustapha Hamza ak ki nga xam ne moom mooy Alfahim Sall ak Yahya Touré liggéey boo kenn mësul xam ni mu kawee ak fa mu jëm ma ngay avancé bu baax a baax aussi que niveau national international ak docteur Mohamed Mohamed Diop moom mu nga xam ne moom mooy yor tafsiru Falaaq kon ci gàttal liggéey bi mu ngi gën a yaatu mu ngi gën a tasaaroo ba jàpp nañ ne bi sénégalais yu bëree bëri léegi comprendre nañ ko jaare ko ci nga xam ne moom mooy groupe whatsapp yi ñun nag ñu ne woon di liggéey ay ak at def ci conférence dem ci fu nekk mais yàlla mu ñu jàppale liggéey bi àgg fi mu yegg ci grâce ci nga xam ne mooy Alfahim mi nga xam mooy borom groupe bi bi nga xam ne moo ñu ci dugal wax dëgg yàlla jox ñu ci li nga xam ne moo ñu ko ci jox ci ay wàll bañ mën a teg suñu liggéey normal te amuñ ci benn gàllankoor par contre sax ñu ci jàppale ci anam boo xam ne macha allah ñu ngi sant yàlla bu baax a baax a baax di sant leen ñëpp yàlla di gërëm suñu xarit Alxaaji Malick mi nga xam ne suñu wëlër la di gërëm ak Alxaaji Njiga di gërëm suñu baat papa Mouhamed Lamine Diop ak suma xarit boobu nga xam ne mooy Ahmed Dam Faye ak Ibrahima Sow euh, ak suma sama kóllëre bi ndeysaan temps dafa daw imaamu imaamu sukkoro taay moom dégguma ko de tey bëggoon naa ko dégg lool am na thème yu garaaw yu fi jaar xaw ma nu mu demee noonu waaye rek dëgg <laughs> Badru Diin maa ngi lay nuyu di la ziar al mujaddid xubu taaha wa ali bayti maa ngi ziar ñëpp mbokk yi ku ma tudd ak ku ma tudd yëpp ñi ma tudd yóbbaale na leen waaw daawaan alhamdulilah rabbil alamin assalaamu